هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مساهدين muhtaramin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñuy déglu di ñu seetaan ñoo ngi leen di nuyu ci kenn ci yéen ku di leen ziar ci weer wi ñu tuddee shahru ramadan al mubarak ñoo ngi ñaan yàlla yal na yàlla nangu sunuy jaamu yàlla ci weer wi ak ca gannaaw weer wi itam na ñu yàlla jéggal sunuy tooñ suñuy bàkkaar yàlla bu suñuy bàkkaar tax mu nattoo ñu ay fitna ak i mbugal yal na yërmandeem dox suñu diggante ak suñuy bàkkaar ak njëggalam dox suñu diggante ak suñuy bàkkaar yal na yàlla yokk sunu ngëm yal na yàlla yokk sunu tawxiid yal na yàlla yokk sunu imaan yal na yàlla barkeel kër gi muy deesees barkeel boroom kër gi ak directrice bi barkeel mbooleem ku fi liggéey yal na yàlla xettali réew mi yal yàlla wàllu jaam yi jafe-jafe yi nga xam ne yàlla rekk am solution yal na yàlla di solution ba jaam yi génn ci jafe-jafe yi ñu ne mbokk yi taddi yi ñuy seetaan di ñu déglu xam ngeen ne sunu waxtaanu démb ci wàllu kër ci wàllu famille ci wàllu société ci wàllu nation mi ngi taxawoon ci nan lañuy ñuy tànnee soxna ndax tànn gi moom lu war la képp ku dafa bëgg a taxawal loolu ñuy tuddee kër il faut mu tànn soxna tànnee ko ni ku ko diina digalee koo xam ne dafa toll ci wàllu bëgg a dugg néegu sëy muy boroom kër la bëgg muy ku jigéen kooku it dañ ko digal mu tànn ku góor ka muy àndal nga xam ne moom lay imbil moom lay ëmbal la mu yaakaar ci avenir yépp muy ak njabootam war na kon tànn moom it ku góor kooku moom ku jigéen kooku war na tànn ku góor kooku tànn ko ci jikko yaag melokaan yaag juddu baag diine jaag balaa nga ko tànn ci alal waxoon nañ leen conséquence su tànn ci alal euh, difficulté yi mën a jur bu ñu demee ba ca biir wante it waxoon nañ leen conséquence su ku góor ki it mu tànnee taar rek muy rafet na rek seetul juddu seetul jikko seetul ngëm seetul yar ak pas-pas moom it buñ doxee ba ca kanam tuuti rek loola conséquence yam mën a jur ci taxawal fami kon dafa mel ni ci tëralin boobu rek la ñuy wéy tey di ci waxtaan mooy léegi nag tànn nga yow ku góor ki na la yàlla digalee ne noonu nga war a tànnee soxna tànnee nga ko noonu wat yow ku jigéen ki tànn nga na la yàlla digalee ne noonu nga war a tànnee boroom kër muy jëkkër tànn googu nag bu amee ca la la ca topp mooy pas-pas pas-pasu ñu yëkkati kàddu uh, ci ay seede ak can nag yëkkati kàddu ne sëy am na ci ñaari góor ñi ci ku góor ki ak ku jigéen ki hmm. bu sëy boobu amee léegi nag ñaari ñu sëy yooyu nan lañuy dëkkee gannaaw bi sëy bi amee nan la ñuy dëkkee nan lañuy fexee ba seen dëkk am jàmm nan la ñuy fexee ba déggoo nañ la ñuy fexee ba sëy ba sëy nekk yiw ak ngëneel ak yërmande ak barke nan la ñuy fexee ba njaboot ga dugg ga sosoo ci sëy ba e, waajur yi wuuf leen ñu mën a dal nekk njaboot gu danañ former famille bu yiw ci baax ak ci jikko famille boobu ñooy formé si pénc bi pénc bi di formé si nation bi kon tànn nit yooyu ñuy tànn mooy tànn nation société bi tànn nation bi loolu mooy indi nation bu baax nag ndax ci ay tànneef lañ ko jëlee kon ñooñu am na lu ñu war a bindoo ci biir kër gi muy ku jigéen ki am na lu ko war yàlla subhaanahu wa taala teg ko ko ne ko noonu la war a comporté woo ci biir sëy bi ku góor ki itam am na lu ko war nga xam ne yàlla subhanahu wa taala moo ko ko teg ne moom it noonu la wala comporté wu ci biir sëy bi ndax bu ñu tànnee ci façon bu baax na leen yàlla digalee woon it sëy bi itam dafa am euh, tëralin bu leen yàlla digal subhanahu wa taala ne noonu la ñu war a dundee moo tax yàlla subhanahu wa di wax aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa min ayaatihi an xalaqa lakum min anfusikum aswaajan li taskunu ilayha wa jaala baynakum almawaddata wa rahma yàlla mooy wax subhaanahu wa taala kon aayaa ngi nii boo xam ne daanaka boo ko toppee lépp lu aju ci sëy ak na la war ku jigéen ko ci biir sëy la war ku góor ko ca biir sëy nan lañu ñu war a dundee ba njaboot ga am yar bu baax nekk njobeetuk tànneef aaye bi tënk na lépp boo toppee ci usra bu Cheikh Moutawalli Chahrawi wala ci eh, ku ñuy wax docteur Najib ak yeneen i borom xam-xam ci lislaam daanaka buñ la firilee aaye bi da gis ne aaye bi tënk na lépp lu nit dana ko soxla ku góor ak ku jigéen war ko comporté woo ci biir sëy aaya bi tënk na ko waaye li ñu njëkk wax jullit bi mooy sëy kon nekkut loo xam ne rek lis gisinu lislaam nit ki dafay takk jabar comme lu ñu waxoon démb ci benn côté wala nit ki day sëy wuti jëkkër ci benn côté lii ñu sant jullit bi mu ñekk ko xool bu demee ba yëg ne moom mi ngi bëgg a takk jabar wala war na takk jabar wala mat na takk jabar loolu il faut ñu xàmmee ko maanaam bëgg takk jabar nga xam ne bëggu-bëggu plaisir moo ci dugal wala war nga takk jabar parce que toll nga ci aas boo ko mën a takkee boo boo boo war a takkee mat nga takk jabar bokkuñu bu la waree mooy boo demee ba gis ne man nga ko bokk kooku mooy war nga takk jabar man nga ko ci physique man nga ko ci moral man nga seere famille man nga teg fami ci yoon man nga jubbanti famille la la ca yàlla sant man nga ko remplir ci matériel ak ci moral ci jikko ak ci yore bu boobaa dañ naan man na takk jabar amma mat na takk jabar nag mooy dem ba toll ci aasu war a maanaam say at may la nga takk jabar waaye nit dana dana mat a takk jabar te du mën a takk jabar moo taxoon yonent bi ne e, ci yéen waxambaane yi képp koo xam ne toll na ci mat a takk jabar te mënul takk jabar ndax condition ya dajeewul te mu bañ def lu naqari yàlla la gën daal mooy muy woor koor googu dana wàññi e, cër ya doole cëram bu doolee cër yi wàññeekoo euh, bànneex ba nga xam ne do ca doole la daan joge bànneex boobu dana wàññeeku mën naa am kon loolu dana dox diggante mook moo yàlla loolu mooy atte ki nga xam ne euh, mat na takk jabar waaye manu ko kon takk jabar dafa am condition doo ko doo doo doo doo doo doo mata di takk jabar rek doo toll ci war a takk jabar am as bi rek ñu ne la takkal boo mënee takkal boo mënul takkal condition mu takk jabar dafa am critères yu mu laaj critères yi mën nga ko yor mën nga ko dundal mën nga ko sàng mën nga ko wodd një mën nga ko faj njaboot gi buñ juddoo mën nga leen entretenir yore leen yar leen yar yu baax yar leen ci jikko yu baax yar leen ci jàngal leen mais dundal leen dund bu baax dëkkal leen fu baax euh, euh, aar leen ndax looyu critères yëpp daje na ci yow ku góor gi amma bu fekkee ne critère u mën a takk jabar dajewul ndax man war a takk jabar rek moo ñëw nga takk te man nga ñëwul bu boobaa lislaam du la digal mukk nga aventurer ci loolu ndax day dal di jur fitna mën na jur fitna ci sa jëmm mën na jur fitna ci ki ngay takk mën na perturber yarug njaboot gi nga xam ne da nga dajale lu man ñaar fukki doom te eh, mën na am doo leen mën a dëkkal doo leen mën a dundal doo leen mën a wodd doo leen mën a sàngal doo leen mën a yar jàngal leen loola bu boobaa day jër day jur benn conséquence euh, ab jafe-jafe ci yarunu njaboot bi te loolu dafay njeexital ba ci société bi njeexital ba ci nation bi euh, amma boo demee nag ba mu war la te nga man ko na ko def ngir yàlla nang ko def ngir jaamu yàlla c'est-à-dire sëy lislaam daf ci digal jullit bi mu def ko ngir jaamu yàlla mu def ko ngir wut ngërëmul yàlla mu def ko ngir jooxi ngërëmul yàlla mu def ko ngir barkeel Euh, mu def ko ngir yërmande yàlla waaye bu mu ko def nguur simple plaisir waaw plaisir bànneex rek kooku warul tax nit ki di takk jabar kon sëy luñ war a xamal nit ki la bu tolloo ba ca man ko te mu bu tolloo ba ca man ko te mu war ko te man ko bu yeggee ba ca étape boobu ci dundam war nañ ko jàngal sëy xamal ko yow ku góor ki lu tax ngay takk jabar du caageen rek da ngay dem def benn bànneex euh, ci moom ci lal bi moo tax ngay takk jabar bu fekkoon ne loolu rek bànneex boobu rek lañ ci jublu ne moo tax ngay takk jabar mais euh, jarul toog di ko xutba parce que bànneex bi mën nga ko am ci place bu ne boo ragalul yàlla mën nga ko am ci anam bu ne boo ragalul boo ragalul yàlla waaye li tax ñu tànn loola di la tànn loo di la tànn loo lu tax ñu ne bala bu tànn gi amee nag balaa ngeen war mën toog fokk seede yi ñëw fokk ñu indi tuuti alal fokk ku góor ki indi délégation ku jigéen ki fokk ilimaan ya toog ñu dal di déclaration de yëkkati kàddu yàlla baatu yàlla bi kalimatu allah baat boobu ñuy yëkkati mu yàlla ci biir sëy ba bu seede yi xasee ñëw ak can gi bu ñu ko yëkkatee rek eh, sëy ba dal nay dagan a ah, lu tax balaa dagan kon ñu tudd ci yàlla lu tax balaa dagan kàddu yàlla googu ñëw moo lay waral woon ne ndekete yàlla ngay sàmm ci biir sëy bi ngërëmam nga ciy wut ndigalam nga ciy wut barkeem nga ciy wut waaye wutuloo ci bànneex rek ku góor ki noonu la war a gisee say balaa cee dugg ku jigéen ki noonu la war a gisee say balaa cee dugg ndax kenn ci ñoom ku nekk genn wàllu aljanaam dafa ne ci loxo moromam genn wàllu ngërëmul yàlla nekk ci loxo moromam koo xam ne kii nag sa genn wàllu àjjana mi ngi ci sa loxo morom ku góor ki genn wàllu àjjanaam mi ngi ci loxo ku jigéen ki ngërëmul genn wàllu ngërëm ci ngërëmul yàlla yi mi ngi ci loxo ku jigéen ki wàllu barke yi ko yàlla dig ak yërmandeem mi ngi ci loxo ku jigéen ki ku jigéen ki itam ak aljanaam genn wàllu aljanaam mi ngi ci loxo ku góor ki barkeem mi ngi ci loxo ku góor ki ne yàlla genn wàll gi mi ngi ci loxo ku góor ki kon kenn ku ne am na loo xam ne ci yàlla ci ngërëmam ci barkeem mënuloo ko am lu mooy nga nga nga ànd nga ànd ak sa moroom kon sëy dafa am yiw am barke am am am lu ci nit di wut